ministre yi àndoon ak président Abdou Diouf koo ci gis tey nga dang maa la ko wax koo ci gis yërëm ko ñi àndoon ak président Wade moom waxe noppi boo leen gisee fi mu ne ci télé yi dangay foog ne sax lii léeg ma gis ci nit ma ne kii la woon nekkete kii ndeysaan mu ñuul ñaaw ndekete leer ga yëpp leeru diwu la woon ak xaalis <laughs> bi xaalis ba jeexee rek jeex na leer ga jeex na yii boo gisee ma di ko wax man population bi laa yërëm démb maa ngi koy wax ci xadara bi billaahi bu doon sama sama yëfu bopp rek dootuma génn di wax li ma yàlla war a may yàlla dara maye ko dara waroo ko bokk waaye li ma war a am yépp am naa ko su ma neexoon toog sama kër du ma génn waaye duma doxaleek doxaleeg Sénégal ci li Alaaji Abdou daan wax duma ma doxaleeg jaami yàlla yi noonu duma ma doxaleeg mbindeefu yàlla yi noonu lii may wax yépp pour sensibiliser nit ñi la ak sama bopp ngir yàlla balaa ñoo falati kenn nañ ko xool ak ku mën a doon nag man wax naa leen ne ànduma kenn bu ma kenn féetale kenn ànduma kenn bu ma kenn féetale kenn yàlla laa àndal nee naa leen xuus maa ñàpp sax bu fi toogoon mooy giñoon baax na man daal lenn laa doon bañ kooku moom dama ko allergie woon mooy troisième mandat comme amatul xuus maa ñàpp sax bu toogee baax na waaye balaañ fee teg kenn nañ ko xool ci biir ak ci biti est-ce que mën na ko est-ce que li muy wax mën na ko wala est-ce que dana ko def yàlla rek a xam nag dina ko def wala déet waaye nañ xool jikko ji jikko la ñuy falee nit Sénégal nag mënuñoo fal ku leen neex lañ xam xamuñu ku nekk ci dëgg xamuñu ko am dëgg xamuñu dara ku leen neex diw daal neex na ma neex na ma loolu nag feek ñu ngi koy ref duñ jóg ci nguute gu bëtul set ma jeexale ko Amérique balaa fa kenn di falu balaa fa kenn di falu buñ la càmbaree gis ci yow benn caaxaan bu soobee yàlla doo nekk président de la république France gii rek li ñuy saay saay saay saay la même chose Sénégal rek ngay fal ku la neex ci num la neexee te loolu nag du ci ñun constitution bi tëralu ko ñun ñoo ko nangu suñ meree daal fal ku ñu neex ñu baal maaq tey ñu ngi bëgg a dee jigéen ñi lu ngeen di jëndee gaz ah lum daan jar mille cinq cent tey mu ngi ci trois mille et kilo yàpp lu ngeen koy jënde quatre mille bu dee dibiteri nga koy jënd kilo yàpp six mille franc la. jaay amul looy jënd tey lu du triple nañ ko te kenn waxu ci waaw waaw balaa xar di lekk ripaas nit lekk boobu yow xar nga tal ñun biir yii lañ tal ak njaboot gi yow xam naa ko bëgg xar nga waaw arifqu bil xayawaan fa la dugg rek yonent bi nee na am leen am leen yërmande ci jur gi rifqu bil xayawaan da ngeen am yërmande ci jur gi yonent bi lu ne wax na ko sallallahu alayhi ku ne bàyyi na ko xel jamaadaat yi sax bàyyi na leen xel waaw ne nag réew moo xam ne facture courant kenn du laal man de bu facture di waaj a damay mel ni kuy matu yàlla xam na ko damay xaaj jëbel damay mel ni kuy mattu ndax man sama zawiya baa tax moo kër ga lañ boole léeg-léeg ay trois cent mille lañ may dóor ay deux cent quatre vingt quinze mille bii passé rek deux cent quatre vingt quinze mille lañ ma dóor ci benn kër nga yor ñetti kër war a fay courant war a fay ndox say doom war a jàng te ñal la ko teg ñoom ñu ngi gundaandaat yëguñu ko ñoom man politique ma de dama leen di laaj li may yëg ndax yéen a ngi koy yëg yal na leen yàlla nattu ngeen teg fi nag ku ko yokk ah waaw du yéenay xool ndax di ngeen fi teg ku leen ko wàññil wala ku leen ko yokkal am leen fulla ju day ni nag seet ci biir programme yi gars yi dañuy naxe de duñ leen wax mukk programme bu leer seet leen ci biir ndax campagne yi léegi mu ubbi moo tax may wax li seet leen ci biir nit ñi ku jël initiative wàññi courant bi wàññi ndox mi wàññi dund gi te teg ko ci baas bu leer waaye bu mu di ay wax rek de waaw kañ jërë ngeen jëf bu mu di ay wax bu di ay wax man politique waaye ci réew mi laa bokk li ñu metti sañ nañ ko wax wala déet wala ma noppi boog li may wax fii laa wax fa ma jógee de te Thierno Bachir laa gën a ormal ci àddina tey bu bu waa Tiwaawoon weesoo Thierno Bachir laa gën a ormal tey waaye daal ci gàttal imam élection yii di ñëw maa ngi leen di ñaan am leen fulla bu leen xeex bu leen saaga bu leen xaste bu leen ŋàññit jël leen seeni kart def ci seen poche mm-hmm. sëñ Babacar si radiyallahu anhu daan naa wax ni ñaari carte am mm-hmm. bi ci sa poche ak sa làmmiñ bi ci sa poche jox ko ku la doy mm-hmm. waxul ku la neex de jox ko ka la doy bi ci sa làmmiñ nga noppi te dem ñibbi lii la sëñ Babacar si radiyallahu anhu daan wax kon nag am leen fulla ju day ni ngeen xool ci biir nit ñi koo xam ne programme wàññi dund bi mu nga ca bañ yëg ko parce que lu mën a nekk la bu ñu kenn indil ay théorie du dëgg billahi wal kitaabi du dëgg théorie bu nit mën a indi du dëgg ceeb mën na wàññeeku diwlin mën na wàññeeku courant mën na wàññeeku yàpp mën na wàññeeku lépp mën naa wàññiku ñoo ko gonfle pour def ko seen confort di dundee deretu baadoolo yi lii rek moo fi ne wa alal axir beneen bi ci des mooy rey gi yéen ñëpp yéen a ngi koy gis moom laa jeexale léegi ci Cerno Bachir moom lay jeexale fii mhm. maa ngi leen di ñaan njaboot gu sew gi waxuma sax njaboot gu sew gi waaye mag sax booy génn nanga bàyyi xel sa bopp ki ñi ren di Cees bii sama wëllëre la billaahi wal kitaabi bi ma jógee ci gàmmu gi ma doon def fii pikin Touba Pikine dama yegg bu julli fajar toog rek colonel woo ma ne ma sa xarit bi rendi nañ bi njëkk ci weeru koor bi maa leen koy defal boo tàppee woon léegi Chérif Dabakh TV gis ko mooy bu serrage bi rek ñooy boole ñoom naan ak serrage lu mat fukki doom ak benn ak ñetti jabar nga rendi ko noonu imam yi ñu ne bu kenn du ko wax bi ma koy wax léegi préfet ngi toog ci sama càmmoñ préfet fële ci géejewaay ci Parcelles Assainies mu ngi toog ma geesu ko ne ko préfet yéenay responsable ma ne ko rey gi yéenay responsable man dara dafa fees sama bët lu dut yàlla te ñooy responsable buñ fi rendi woon léegi doomi ministre balaa jant di so ñu jàpp ko punir ko immédiatement voilà dëgg la wala du dëgg buñ fi rendi woon léegi doomi ministre balaa jant bi di soob ñu xam kan la jàpp ko punir ko imam jëbal kii comme ku rendi xar Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz daf daan wax ni nit dina yar a xar pour tabaskee ko mu nekk ba tabaski jot mu miin xar mi miineel bu day ni ak cofeel bu day ni du ko mën a rendi day woo nit mu rendil ko ko te buñ koy rendi sax day fattu ji bañ rendi ko ba pare ndax ñewent bu mu am ci xar mi yow nga ne sa xarit la tuddee na la doom nga rendi ko ndax vingt mille francs boobu mooy bu bu bi noonu la amee fii ci Caaroy ki ñu rendi tey ci fajar ci Thiès kooku moom sama wëllëre la ah, rendi comme kuy rendi xar imaam ndax dégg ngeen xoolal ren di ba baat bi tàqali ak yaram wi waaw lii buy am ci réew affaire la te mu ngi bëgg a ëpp loxo ah, hmm? mu ngi bëgg a ëpp lox na ci ñëpp wax na ci ñëpp wax yéen ñi yàlla jox kàddu ngeen di wax wax leen ci suñ borom nee na annahu wala innahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fi l ard fa ka annama qatala naasa jamian wa man axyaaha fa ka annama axya naasa jamian daf ko bañ ba tanwin ko yéen ñi jàng grammaire suñ borom ne annahu li mbir tey mbir li wérte mooy man képp koo xam ne xatala rey na nafsan benn bakkan xam nga lu tax mooy bakkan bi am zéro bi door a judd ak bi am cent ans ak bi fi def mille ñoo yem ca yàlla ñoo yem képp ca yàlla yàlla ne ku ko rey bakkan boobu aw wala boog fasaadin nga jublu yàq rek fil ardi ci kaw suuf mu ne fa ka annama fa immédiatement fa nga ko defe ka annama mel na ni man koo xam ne xatala rey na annaasa nit ñëpp ci dënd bi jami mboole seen maanaam ñi ci àddina yëpp nga rey leen te benn bakkan la yàlla wax mu ne waaye nag wa fàttalikul benn tey ne man képp koo xam ne ahyaaha dundal na bakkan ci nan nit feebar na ñu war ko opérer tey un million war ko opérer te suñ ko defut mu dee mu ñëw ci imam Jabel wala ma ñëw ci sëñ Ahmed ne ko buñ ma opéré wut ma dee de facture baa ngi nii imam Jabel wala imam Ahmed jóg dugg néegam génne un million def ci enveloppe jox ko ne ko demal ñu opéré na ñu opéré ko mu wér ak jàmm ñëw ne ko maa ngi nii wér na yàlla ne yow mi def loolu mel nga ni ku dundal àddina bi yàlla ne yow mi def loolu ci mbaax ak yiw mel nga ni ko dundal dën àddina bi yépp ñi ma bind tiyaaba bu toll noonu ngay am poñetu àdduna tax ngay rendi nit di rey nit yaa xam ndombal tànk boo bëgg ñu fal la ko te nit ñi mm-hmm. falu jaral na leen lu ne affaire la de affaire la de falu jaral na leen lu ne alal jaral na leen lu ne siiw siiw siiw jaral na leen lu ne te yii moo fees senegal ñii falu lañ bëgg ñii alal lañ bëgg ñii siiw lañ bëgg ñoo lëmbe senegal tey imam li ma lay wax nag xam naa ko su ma nee siiw rek ñépp dugg nañ am na ci sëriñ soo xam ne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 te yonent bi lu mu teg bëtam dina ko présenter jullit ñi wal muminuuna ñépp gis ko nag ñu delloo la yow wasatu radduuna ila alimil bi ki nga xam ne moo xam lu fàddu ba génne ko ci biti wa shahada ak li ne fàng te nga bëgg ne fàng ba nit ñi gis la kon jaru ko jërëjëf soxna si waaye kon daal mbokk yi ngeen baal ma bari wax rekk a tax waaye li fi ñuy wax doy na sëkk xaj jëbel li mu wax doy na al imam imam ahmad li wax doy na waaye bu ma nee waxal bu ma bëggutoon wax sax dina wax ndax mottalil ko yéeneem waaye wax ji ma wax jubluwuma ci attaqué kenn xeexuma kenn nit li ma doon wax léegi fële lay waxaat rek xeexuma kenn attaqué wu ma kenn amuma kenn xaar ma yàlla siisuma kenn waaye dëkk bi ñoo ko bokk li alaaji masila kan mu baax mii di wax nee na nit ñi taamu tànn nañ dugg ci réseaux sociaux yi di wax lu bon ak di weeraate waaye nañ ma bàyyi mayit nag tànn naa wax lu baax ak siiwal lu baax masila kan de moo koy wax ah, ki tànn lu bon di ko siiwal ñun nañ tànn lu baax di ko siiwal waaye xaaji jëbel nag ma dimbale vidéo boobu boo ko amee naa fexeel ma jot ci ah, waaw kañ aw ma aw ma seen whatsapp yi aw ma ko waaye dagg dimbale ma rek nga dagg ko dinaa ci def liggéey bu mucc ayib waaw dimbale ma rek ñu daggal ma ko waa Malikiya incha allahu dinaa ci def liggéey bu mucc ayib parce que yu ni mel dañ ko war a siiwal dañ ko war siiwal ñépp xam ko moo tax Cerno yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay ndax loolu courage la nag ak fam ko waxee ak ñafa toog courage bi mu am ba wax ko billahi yal na yàlla yëgal ay dara darajaam nit ku baax la Cerno Seydou parce que am na loo xam ne boo ko waxee ñëpp nga ko waxal man bëggoon naa koo wax yow bëggoon nga ko wax moom sëñ Ahmad bëggoon na ko wax moo toog te fam toog foofa la gën a porté pour mu wax ko kon yal na ko yàlla fay waaye yal na ko yàlla sàmm nag ndax am na loo xam ne boo ko waxee am na ñoo xam ne ñu ngi jonkon waaye kenn du ko mënal dara ndax alxaqu yula wala yula alay dëgg rek mooy féete ko allahu huwa alxaq walxaqu huwa allah yaa ayuha alladina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum aw ilwalidayni wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fa allahu awle bihima alxaqu laa yuqarribu l ajala wala yaqta'u rizq salaay salaam ne na dëgg du tax nga dee te sa dee jotut te du la xañ wërsëg alxaqu laa yuqarribu l ajala wala yaqta'u rizq salaay salaam ne na dëgg du tax nga dee te sa dee jotut du la xañit wërsëg alaaji Abdou Aziz dégg ngeen ba tàyyi mu daan wax ne mm. dëgg yetu dëgg bu jot yi bu jógee mm. dal ci sa kaw bopp yow Abdou Aziz teg ko ci bu dee boppi safiyatu teg ko ci bu dee boppi xaaji Malick teg ko ci wëññeeku sukk ci suuf nekk doom waaye fekk wax nga leen dëgg ba noppi lii la daan wax lii su amoon rek ji réew mi baax waaye ku ànd ak yow lu mu wax baax na lu def baax na ku àndul ak yow bu nee <laughs> nga yóbbu ci kaso lu fi am lu dul lii wax leen ma leneen lu fi am ñaata xale nekk ci kaso bi. sax loolu barke bu ñu leen yóbboon tool yi xam nga ni. ajjuma rek ñu ngi may wax benn xale boo xam ne def na ci kaso bi 6 mois biir néegam lañ ko fekk jàpp ko sama imaamu zawiya bi lañ ko tuddee imaam Youssou Gueye man ne ko lu tax waxoo ma ko boobu ba tey mu ne bañ laa sonal rek 6 mois mu ngi ci kaso bi te biir néegam biir néegam billaahi wal xale bi man maa ko mën a seede. parce que dama ko gëj a gis ma laaj ko imam Youssouf mu ne ma dama la doon bañ a wax de mu ngi ci kaso ba depuis six mois biir néegam biir néegam fa lañ ko fekk jàpp ko yóbbu ko te xale bi xamul lu dul xëy liggéey jàkka ja loolu maa ko mën a seede xamul lu xëy liggéey jàkka ja imam Youssou Gueye lañ ko tuddee mooy sama imaamu Zawiya biir néegam lañ ko fekk monote ko yóbbu te mën naa teg sama loxo ci kaamil ne defut waxul waaw lii am ci réew mi ñu ne kenn du ko wax man maa koy wax ba di ca sàmba di ca dem ndax kenn ci ñoom mënaluma dara fii lañ may bàyyi te ñooy dem wëcc ma fi ndax yoraluma leen dara tus bañ naa ko benn bu dee am naa luñ luñ ma mën a koñee nañ ma ci koñee man dama féex de yoruma seen dërëm lekkuma seen tus munuñ maa teree dem fu mu bëgg a dem kon luñ ma yoral même buñ ma ko yoraloon du tee ma wax leen dëkk ndax li may dundal ak li may sobe nekkul ci seen loxo ci loxol yàlla la nekk lu tax ba kenn du leen wax dëkk ma nga baal ma sama gàmmo gi weesu dafa am ku ma woo duma tudd turam xaaji jëbel ne ma ci biir gàmmu gi te boobu ñëpp xam nañ ne damay takki ne waaye def naa ko dëgg ndax ñëpp a ngi toog Aline Sall ku ne xam na ne sama xarit la lu mbokk ak ki sàll ndey ak baay 2013 bi léegi masul manqué sama gàmmu gi ni ma fonkee àddina bi yëpp xam nañ ko mayit fi ma ko teg àddina bi yëpp xam nañ ko si ma digganteeg moom complicité bi ci nekk kenn xamut nu mu day waaye man dina tee ma wax la dëkk mu ngi toog biram suley jóob a ngi toog biram suley baayam man la ko dënk ki ñi ren di nii rakku baayam la mook baayam a bokk ndey ak baay ndax dégg nga wax bi mu ngi toog maire yi njaareem limaamu laay mooy sama meer mu ngi toog Mor Waré Guèye parti réew mi la bokk ñoom ñëpp a ngi toog parti politique yi ci Sénégal daanaka ñëpp a ngi toog waaye man sama gàmmu kenn du ci jël kàddu ci ñoom non tout sauf ça kañ dangay ngay ñëw toog bokk ak tiyaaba ji ñëpp bu ñibbi jotee nga ñibbi waaye kii doo ko laal parce que du seen rôle loolu laa gëm bër set am ku ma woo ci ñoom. ne bi ngay wax danga ne Ousmane Sonko mu sell mi lool lool ma ne ko waa loolu dañ koy tere mu ne ma noo xam nga ma ne ko boo ma ko waxatee la ma ko wax ñemewuma leen ko réew mi daal tudd fi usman Sonko bàkkaar maa ko tudd Ousmane Sonko mu sell mi Macky Sall mu baax mi Amadou Ba mu baax mi Macky Sall mu baax mi Macky Sall li mu fi def ñëpp teg nañ ci seen bët TER baa ngi nii boo ko jëlee léegi mu yóbbu la Dakar nga fay sa 1000 francs gundaandaat ma ne maa ko wax Macky Sall li mu fi def ñëpp teg nañ ci seen bët Macky Sall du noonu kenn TER baa ngi nii BRT baa ngi nii di waaj daw ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne président de la république son excellence le président Macky Sall moo ko fi def te du yomb keneen def ko man li muy def xam naa ci lu bari boo demee ci ci ci àll bi y a dizaine de villages yoo xam ne mosuñu am courant tey am nañu courant énergie solaire moom gañ lim liggéey la gaayam yi waxut nekk fi di wax yu ñàkk fayda yi rek moo tax mu mere leen waaw man li Macky Sall la wax de lim def wax naa ko du sama noon sama président la ñoo ko fal man ñi ko fal ci laa bokk nangul ko ba muy dem lim fi def ñépp teg nañ ci seen bët boo gëmmee sax di ko gis walla déet baal leen ma rek boo gëmmee sax gis ko waaye nag am ay opposant ñu di leen tudd bàkkaar daf ci nekk loolu lay laaj maane ne Abdourahmane Diouf maa ne Idrissa Seck baax na Abdourahmane juuf baax na usmaan Sonko mu sell mi lool baax na bu dee looloo tax ñuy mere ma xul muutu bi ghayzikum ma ne réew mi nit ñi nañ am xol yu féex fii kenn du fi noonu kenn Macky Sall du noonu kenn Idrissa sekk du noonu kenn ñun ñëpp lu baax lañ bëgg ci réew mi di ko def réew mi rek lañ am duñ dem bàyyi ko fi mais lan moo fi jar yenn yi dara jaru ko loo xam ne boo ko yoree léegi mu jeex def ci yiw rek te wax ci yiw jaru ko man attaqué wu ma kenn xeexuma kenn tolluwuma nenn bay xeex kenn yegguma fenn bay xeex kenn waaye réew mi nag ci laa bokk te dama ciy participer ci biir ak ci biti nag ñoom ñii yàlla jox état bi xam na fi xam nañ fi ma leen teg waaye du tee nag ñeneen ñi tamit njaboot lañ ay nit lañ ci réew mi lañ bokk ay doomu Sénégal lañ président daal maa ngi koy ñaan bu ko kenn féewale kenn na xam ne moo uuf ñëpp na xam ne moo joboote ñëpp na xam ne moo jiitu ñëpp topp ci koom tey lu fi sëriñ rëy rëy kaala président Macky Sall mooy sa kilifa dëgg la wala du dëgg moom rek la yàlla jox pouvoir tey sëñ euh, euh, Badou Kandji mos na ko wax ci sama gàmmu ga boobu am Wade dafi ne te moo valable ci président Macky Sall mu ne tey ab Ablaye Wade président Wade rek la yàlla may tey bu ko neexoon mu ne tous les xalif généraux na leen digg jëli mu ne coow bari rek waaye dig dana leen jëli loolu tey président Macky Sall yàlla may na ko su ko neexoon tey ku ko neex ci réew mi mu ne dig dem leen jëli ko te digg da koy jëli waa pouvoir boobu bu la ko yàlla joxee lu mu la deseelati dara la la yàlla deseelatu kon nag moom dañ koy sant gërëm ko te ñaanal ko yàlla su ko neexee sax mu dem ñëwaat am na ci droit waaye nañ bàyyi ñeneen ñi nga xam ne ci réew mi lañ bokk te bëgg te war a bokk ñu bàyyi leen ñu bokk comme dit sa sens ñu teg ko ci sa loxo gis nga damay wax ne foofu ngeen baal ma fa laa koy jeexale gis nga ñii di rey gémmiñ ñëpp ba ci sonk Sonko billahi lazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum buñ ko joxoon réew mi defut li wax xale yii di ko tàcc ñooy ut xeer di ko ko jol Sénégal ànduñoo kenn xam nga ko ñu àndal seen bopp Sénégal ànduñoo kenn Macky Sall bii 2012 moom la ñëpp doon tàccu président Abdoulaye Wade balaa mu fiy jógee 2000 ñëpp moom lañ doon tàccu tey Sonko lañuy ñuy tàccoog ñi ko ñi ànd ak moom boo ëllëgee muñ leen tuuti rek xeer la ñuy jël lu ne dana ko digg lu ne dana ko dégg ndax kamaatu diinu tu daanu li nga leb rek rek lañ lay fay kon nag yàlla nañ yàlla defal sutura maa ngi leen di jéggalu wax bii ma wax nag bu ci kenn yaakaar ne dafa am luñ ma jox luñ ma jox de xanaa jigéen ñu baax ñi yow ma ko jox te lii sax Aline Badara Kaay def naa ko muy sama participation may ci xew mi ndax waroon naa indaale dara te gaa yi jël nañ ko ca yoon wa waaw ah, su ko defee nag ñun luñ am taalibe lañ koy séddul yàlla xam na ko soxlawuma dara pour sama bopp li ma soxla daal mooy réew mi na am jàmm réew mi na am dal réew mi na am sécurité te kenn ku ne ñu bàyyi la ak sa bopp waaye sa bopp nag bul lor kenn mm-hmm. defal loo xam ne mm-hmm. jàmm dana ci am yiw dana ca am waaw lii nag boo gisee ma jiital ko xam naa ne campagne yaa ngi waaj ubbi ñépp nañ am dal nañ am tey xam naa ne tey sama waa kër yi bu ma yeggee danañ ma waxate waxatee waxate ndax dañ ma noon bul waxati ci politique waaye waxuma ci politique dama wax sama xalaat sama avis laa wax ci réew mi laa bokk attaqué wu ma kenn te li may wax nii ñun ñëpp ko dund maa ngi nii dibi rek laa bëgg li ci ëpp dama koy lekk waaye boo demee ba laajte kilo dibi bu soobee yàlla bu ñu la ko waxee nga reculer waat ah? ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu nag bu amee ci réew moo xam ne loolaal laal triple nañ ko nañ bokk toog waxtaanee loolu kon nag imaam yow lay delloowaat kaddu gi fa tabaarakallaahu te di la jéggalu di jéggalu xaaji jëbel di jéggalu ñu doon déglu ñëpp koo xam ne lii may wax déranger na la wala choqué na la maa ngi lay jéggalu ak foo mën a nekk ci àddina bi te xam ne li taxoon ma di ko wax du ñaaw xol walla bon xol wala bëgg a attaqué nit bëgg wax lu baax rek laa ci jublu woon nit nag moo dul mat kon buñ ma ko jàppee dama doon wax rek sama xalaat xalaat bi nag mën na ëpp ni ma ko waxee mën na yées waaye lu ci mën a am rek maa ngi koy jéggulu in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fa tabarakallah Haydara jazakumullahu xayra eh, léegi nag eh, xam naa eh, sëñ Ousmane su nekkee ñaanu leen man maa ngi dema ah. da ngeen di ñaana ah. waaw bon Haydara jërëjëf jazakumullahu xayra dégg nañu discours bi parce que tam dañu toll ci moment de sensibilisation waaw te dafa am lu ñuy tudde voix autorisée naka jekk boo seetee même ca alquran sunu borom ba muy wax ca yontu yàlla daawud ba mu ko tuddee ba ni ataynaahul xikma waaye wa faslal xitaab du borom bi ñëpp la jël rekk boole leen loolu ñuy tuddee voix autorisée lu ne am na ku ko war a wax moo tax lii nga wax nii moom lañ fi waroon a dégg te yow mi ko wax yaa ko waroon a wax alhamdulillahi rabbil alamin way jur yi dégg nañ ko kilifa yi dégg nañ ko kon ñun ñëpp nag nañu gën a góorgóorlu te dànku nag parce que Chérif évoqué na ay tomb yoo xam ni yi sooxee ci réew mi foofu la bàyyikoo te foofu lay dellu kon nañu góorgóorlu mbokk yi nañu góor góorlu man nag dama xamul lu bari ci seen façon yi ñuy def man wax dëgg yàlla euh, man Cheikh Tidiane laa xam ci laa ne waaw terewul ma bokk ci réew mi terewul itam ma xam ni am réew war a doxe parce que jàng naa ko mais ànd loolu yëpp lii may gis laa xamul sincèrement bind naa ci ouvrage depuis 2002 bi bato la Joola suuxee ma gis ñu maasale ko mu mel ni ay xar mbaa ay bëy ñoo doon faatu boobu laa bàyyi Sénégal ila yawmina haza loolu nag buy am ñu toog di xoolee Haydara la Cheikh Alhaaj Abdul Aziz doon wax kon su boobaa mooy ñëw hada zamanu alladi kunna nuxaadiruhu fi qawli kaabin wa fi qawli ibni masudi in daama hada walam yuxdis lahu xiyaru lam yubka mayitun walam yufrax bi mawludi mais foofu lañ toll fi ne imagine lii xew ci réew mi mu mel ni dara xewul c'est parce que dafa dalul ci sa kaw bu fekkee kenn ku ne nag dangay toog di xaar ba mu dal yow ci sa kaw ngay soog a réagir mais c'est parce que xamuloo li xew kon nag nañu am tuuti sensibilité am tuuti yëg-yëg mbokk yi xanaa xar boo koy rendi sax dinga am noo noo noo defeek moom xuma la ak doomu adama kon nag yile muy am cim réew réew mu tuutee ni Sénégal Sénégal réew mu tuuti la senegal li ko dëkkee boo xoolee ni mu toll boo demee Maroc gii Casablanca kese moo ëpp senegal kese senegal réyul naqariwul li jënti mais xam nga lan moo doy waar ñii mu tegu ci seeni loxo la kenn xamul luñ bëgg ci réew mi gis nga nag bu ma nee ñii mu tegu ci seeni loxo politique yaa ngi ci biir sëriñ saa ngi ci biir jur yaa ngi ci biir les responsabilités sont partagées tout le monde est responsable yonent a ko waxoon de kullukum raa waaye wa kullukum masulun an raiyati kon nag Seydina Ousmane ngeen joxe ñaan te yeewi ma man ma dem parce que dama Euh, kii yëgul te bu gënee kii day doy waar ah salaamaaleykum. Ah, sëñ Ahmed jërëjëf jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nga leeral macha allah yow it euh, sëñ Ahmed Fall ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax sakk nga tiitar nga ci tarixa bi keroog maa ngi koy wax ma ni sëñ Ahmed Fall bu wootee bés képp kuy képp koo xamante ni taalibe Cheikh na Tidiane rek war nga dem wuy ci ndax euh, moom. Euh, lu ne am na défenseur mais défenseur tarixa bi moom la te mi ngi ciy yee nit ñi di orienté nit ñi Imam Jabel jërëjëf euh, gis nañ bi ñu ñëwee ba léegi yaa ngi toog te xam na ni jot amut dara amut mais macha allah euh, Oustaz Sidi Mbaye mbay it macha allah jërëjëf taxawaay bi rafet na yàlla yàlla teral la Chérif yow moom macha allah li nga fi wax nii gàtt na mais ku ne mën na ci jàng lu nekk xam nga Ahmad Fall li mu def nii ci synthèse boobu dafa am solo. mais macha allah li ñu fi wax daal eh, réew mi fi mu toll mooy ci ci orientation foofu la réew mi toll te sànq dafa am eh, ñaari baat yu mu wax te mag ñi daan ko wax muy intellectuel xam nga ñun lu ñu jox intellectuel mooy kiy jàng tubaab mais intellectuel bu mu maîtriser wul diinam du intellectuel intellectuel boo xamul fartay jàpp xamul suñu lay jàpp te dafa bokk ci charte intellectuelle nga maîtriser sa diine bu loolu la ci laaj nga mun koo tontu. te pourtant ki ñuy wax intellectuel bu jàqee ci diine day am am na fu mu jëm kon fi mu jëm koo koy intellectuel bi kon loolu dafa am solo ki naan tamit di ma dugg du dugal sama doom muy jàngi tubaab mag ñi nee na boo nee du ma jël sama doom bàyyi ko mu du jàngi tubaab nee na nga am tubaab bu déggul tubaab kon fi nga commencé affaire foofu la mais yàlla yàlla fayal nu la Chérif yàlla yàlla nga fi yàgg loolu nag waaw nu yàgg laa sago ndax biñ la xamee ba léegi yow itam nit ku baax. waaw jërëjëf eh, eh, sa sa discours mosut a changé daal waaw yal yàlla defal la sutura yal yàlla defal la jàmm dëgg dëgg nag eh, Alioune Badara Ndoye yi lii ngeen ko defal tey jii defaleen ko Alioune Badara Ndoye mais waa Pikine gépp ngeen ko defal ku am plateau bu mel nii Abdou Aziz Fall waxtaan dem nu jox Oustaz Diabel mu pare jox sëñ Ahmad Fall ñu pare Chérif daal di koy def baa nekk moom dafa fekkee lépp rek def synthèse c'est très important yàlla yàlla fayal nu leen li ci des nag mooy ñaan. waaye bala ñu ñaan ñu sant sang bu toog bu bu tedd bi toog euh, Chérif Mouhamadul Habib Atijani Dia tono Chérif Mouhamadul Habib la mais moom mii dafay def liggéey bu am solo ci gis nga xilaas bi gars yi di waxtaane moom da koy jàngale ci pulaar di ko waxtaanee ci pulaar te wax naa ne digganteem ak Alioune Badara Ndoye ku ne xam na ko gàmm moom bu ñu demee Fuuta Alioune Badara lay teg lépp ci loxoom nee moom li ko gën a la ci Badara nee na bu demee ni Alioune Badara loolu ma la jox mu ne ko bu ma jox dara man ne yonent bi saa salaam moom fi andi nee loolu bokk na ci li ko impressionné ci Alioune Badara kon ñu ngi lay ñaanal Chérif borom xam la fees dell ni tekk nag yàlla yàlla sàmmal la yàlla yàlla aaral la kontaan nañ baax sëñ Youssou Diagne jërëjëf soxna yu baax yi toog fii yéen ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax euh, sama umpaañ euh, Adja Asupula den nag gañ si ñu ngi leen di sant ñaanal leen yàlla bu baax a baax a baax a baax nee day ñaan ci barke kilifa yi ñu jox mu ñaan ah. kon bisimilah kon léegi nag ñaan nekk ci des na ñëpp tàllal loxo yu ñaan incha allah rabbi la bayk waaw ñu yéene ci voilà foofu dama gis nga léegi nag Abdou Aziz Mbaye ñu bëri xamuñu lu tax ñëwul jàmm rek la dafa nekk ci ndigalal xalifa bi ma nga gàmbi waaye laata ba mu dem waa muy dem woo na Badara ba mu ba mu eggeet woon na Badara te bés bii kenn ko ne xam na ne Abdou Aziz Mbaye lañ ciy waxtaanal doog ko jàpp waaw loolu tamit euh, ñu xam ko baax a baax a baax incha allah rabbi nga xam ne Abdou Aziz Mbaye tey dafa nekk ke ndigal xalifa bi ca Gàmbi waaye bu du woon loolu fu mu nekk toujours dana ñëw fii lu mu xat-xat doog dem waaw tey rek groupe soppee ñëpp ñëpp teew nañu bi gi des it mu dugal ci ñaan gi euh, maam astuwaalo Mbàkke moom sëñ Fàllu ndax sëtu sëñ Jubaay moo ci magoon moom moo làqu waaw kon nag yàlla na yàlla oyofal ci kawam yàlla yàlla may ko aljana kawel aljanaam bi jaayin Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon Chérif waaw euh, hmm. nee na ñemewul ñaan ci kanamu sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na billaahi ma ngi doon xalaat kan moo war a ñaan Alioune Badara désigné la doy nga ñëpp jox na leen ndigal ñaanal ok do asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi ñu ngi jéggal lool yëkkati suñu kàddu ci seen kanam waaye comme ku am naa occasion ñu jagleel ñaan foog ma wax lu tax ma teew fi wallaahi laadim néew na gàmmu wala takkusaan bu may toog commencement ba mu tas néew na waaye kii teraanga bu ma jiñ moo tax ma toog fii Alioune Badara dañuy tase nii rek ci ay tànt ma am programme boo xam ne sama dëkk ñoo ma ko jox at bu nekk maa koy gàmm woo ko nekk damaa bëgg ñu dem Fuuta te xamul fan la ci Fuuta mu ne ma pare na damay dem indaale samay woykat yi gunge la dem nañ foo xamante ni néewétu temps ngay ngay daw ba foofu da dem ba wërsëg yi continuer wërsëg yi da ngay continuer dex ñu def fa ñetti fan man la am naa beneen gàmm léegi kaay la ma daggal leen billet ngeen ñibbi mu ne ma déedéet ñu continuer ba seen saa yi ma ko woowee mu wuy si ma fi nga xamante mooy sama gàmmu turndoo si li mu xamante ne la mu tuddee si laatu moom la àndoon léegi fi nga wax ni euh, ci Omarien yi waaye nag ma seedal leen leen ngeen gi ma bàyyil xel jëmm ji Ahmed Fall oustaz Ahmed Fall. wallahi ànd naa sëriñ Abdou Moudalib fu nekk déglu na waxtaankat ku nekk waaye mosuma fekkee. mu woo nit ki téema ci moom dénk ko dara ci moom la commencé man ci li ma fekkee maag Chérif ñoo àndoon sa gaamu boobu mu jël micro ne la Ahmed Fall dama lay dénk nga gën a góorlu ci Jawahirul Maani gën koo firi ndax li nga cay wax am na lu ci laxasu loo xamante ni moom ci waxoon na ci géeg kon dara ji boobu mu am na ngeen bàyyi ci xel li muy wane mooy am na cër ci Seydina Cheikh Chérif Abdou Modèle du waxantu du keneen de mën naa toog xaal dugg ko mu ne ma shérif ma ne ko lappay ko mu ne ma giñ ci giñ na ko ci sama woroom su ma fanaanee ci lal ba yeewu bala may sañ jël samay ñaay samay ñaay tànk te ko ci suuf sama sama sama saam sama maam daf ma jox ndigal ma wàccee ko sidna kon bu loolu tey mooy loolu fu ñu la fekk bi nga ñëwee ba léegi butu sidna laa lay xoolee ngir barkeelu kon ci ci ndigalu shérif rek kenn ku nekk fas yéene suñu soxla yépp yàlla ñu yàlla fajal soxla yëpp bi jaay sotala mboola ñu nekk ci kaso yi yàlla woyofal leen ñu génn fa yàlla bañ leen na tool yi tax ñuy dellu foofu ñu nekk ci hôpital tëdd yàlla na leen fëgg seen bopp woyofal leen ñu ñu jóg ñi feebar yoo xam ne dafa làqu seen yaram di doxante ak ñoom yàlla saafara yëpp kenn ku nekk yaa xam foo yëngu ak fa sa yaakaar nekk yàlla fekke la fa ak xéewal Alioune Badara yàlla na nga dundu cent ans sans ordonnance yàlla yokk xam-xam bi te woyof nga wax dëgg yàlla yëg nga ñëpp dama kontaan bis bi sama bés la nit bu nekk sa xarit bu bonee da jaaxal ndax boo ne ku baax la dañ weddi waaye bi nga bi nga baaxee ci man ma gis nit ñi dama gën a kontaan xam naa ne am naa xarit macha allah ñu jàng Fatiha benn yoon salaatu Fatiha li ma awliqa benn yoon ñu def ko addiya rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu neexale ko yàlla yàlla fay suñ soxla bi jaay rasul sallallahu اللهم صل صلاة كانت وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتبدى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفس ولمد وذلك كل معلوم لك اللهم فكن لنا بحق سر لفاتين وكل آتي أتم فاته بجاي فاته لما قد أغلق وخاتم لذا ما قد سبق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 Euh, ci école Seydou Nourou Tall en face jumaa ji nga xam ne nag tey dañ fay fekk ku tedd waaye fekk fi ku baax fekk fi koo xamante ne nii mën naa ne àdduna wëngal këpp tey ràññee nañ ko ci lan tagg yonent bi waaye nag mu koy defee ci kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick jàmbaar ji muy kan di Seydina Alioune Badara ndooy tey nag ñu fekk ko fii ci programme am bi muy defal baayam di imam Mouhamad ndooy ñu nii ko ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla dooli ko wér mu xaddamu alxaaji Mansour bal xaw mi boobu yàlla na ko yàlla yokk wér kon imaam Alioune Badara Ndoye tey dafa mel ni ñu ngi ci Pikine ah ñëw nag ci bis bi nga xamante ne nii da nga koo def waaye jagleloo ko kenn ku dul yonent bi ak sa baay Mouhamad Ndoye ñu lay laaj nag Seydina Alioune Badara tey programme bii nii ah dafa mel ni tàmbale nañ ko ci jàmm nag kon léegi ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi incha allahu rabbi ak ci yeneen question bisimilah. macha allah ah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, mbokk mi yow maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Eh, tabarakallah di rafet lu seen teewaay ci bis bi eh, bis bi eh, Thiam Sono TV bu fi teewee du jaaz ndax bis bi bisam la loolu la yàlla dogal macha allah ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp ci macha allah Thiam Sono TV soppe yeeg xarit yeeg am di jàmm yi di leen xaar. di wax ni nag bis baa ngoog tàmbale na ci jàmm incha allah di xaar gan yeeg sopp yeeg xarit yeeg am di jàmm yeeg yëpp macha allah wasalaamaaleykum. ah tabaarkàlla mbokk yi deg ngeen li ngeen xam ne moom la Seydina Alioune Badara Ndoye nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi ma leen di wax nag fii mooy Thiam Sono TV télé bii ku ko dul seetaan yaa ngi ci erreur ndaxte lépp loo xamante ne nii ñu ngi koy def ci kër maam Cheikh Seydi Hadj Malick waaye di ci tagg rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lépp fi lay xewee te lépp fi lay neexee kon Seydina alin tey ñu laaj la benn question boo xamante ne ni mën nañ ne sax euh, du lu bees waaye ñu ne la tey programme bi kañ nga ko tàmbali ak lan moo sabab tey programme bi nga jékki-jékki rek am yëg-yëgu def ko ngir lan sagale ko sa baay macha allah tabarakallahu euh, Cheikh Alhaji Abdoul Aziz question boobu danañ ci bëgg danañ ci kontaan euh, ndax nit yaakaar naa ne lépp lu nit di def. am na cëslaay bu tax mu war koo mën a def bi ci jiitu mooy kañ nañ ko kañ nañ ko tàmbali di def ñoo ko tàmbali di def depuis 2015 depuis 2015 lañ ko tàmbali di def ba tey jii ñoo ngi ci 2024 di ñaan suñu borom yàgg ñoo may nag ak tawfiix bu ñu àndee ak ñi ñu koy àndandoon ñëpp yàgg ko def macha allah beneen bi euh, ki tax ñu koy def ak li tax ñu koy def nit amul lu ëpp way juram muy benn ñaareel bi taalibe amul lu ëpp sëriñu daaraam te ñun yàlla dogal na suñu sëriñu daara moom mooy suñu way jur ndax dañoo judd fekk ko mu yor daara di jàngale ñu jàngee ci moom ba tey ji lu ne ci ñun moom moo ko def ci ñun macha allah yàlla dogal beneen biit muy muxaddamu Mawlana Cheikh Al Hadji Mouhamadul Mansour dëkk ca dëkk ba la ñuy wax sëgal den ak dëkk ba ñuy wax paate xewe te te maam Cheikh Al Hadj Mansour eh, def fa kéemaan yu doy waar yam fa def ba way wu siiw ñu fay way di afil basitati gayrallahi maabudu bil xaqi am fi sama lil gayri mawjudu dëkk boobu fa la ko taalifee macha allah loolu mooy illay eh, programme bi macha allah. ah tabaarkalla na Alioune <coughs> li waral programme bi loolu am na solo te li nga wax léegi dama ci dégg lu am solo mooy nit amul lu dul ay waay juróom te Serigne Hadi way na ko ci waayam bi fonkal say ñaari waajur te sàkku seen ngërëm. kon Seydina Alioune tey moo àdduna wëngal këpp tey ku dégg Seydina Alioune muy tagg yonent bi rek ak foo mën a nekk nga wax ko ak nga bañ ko wax di nga am loo yëg sa xool ci lu am solo te tamit sa xel du la yóbbu fenn fu dul si fan ci Serigne Abdoul Aziz Mbaye mi nga xamante ne nii wàllu yàllaa ko defar te Seydina Alioune ñu gis la booy tagg yonent bi maanaam da ngay yor comportement boo xamante ne ni ku la dégg rek dina xam ne kii li muy def ah yëg na ci sang ba ca Medina. lan mooy illaayo ak lan moo la poussé ngay roy Abdoul Aziz Mbaye ci façon bi nga koy defee ak ni nga koy imité nii. macha allah euh, jërëjëf El Hadj question boobu question bu ma bu ma neex la lu lépp lu nit di def ci àdduna war na ci am kum ciy roy war na ci am idole yàlla dafa dogal Abdoul Aziz Mbaye dañoo gimmi rek ñun suñu kër dafa nekkoon kër goo xamante ne euh, mën naa wax ni fréquentation wu ñii tagg yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ñu mën a tagg yonent bi nag daan fa fréquenté guddi ak bëccëg macha allah ñu yàgg leen miin ñoom it ñuy woy air Abdou Mbaye bi ñu xamee ko ci ñoom eh, yàlla dogal ñu dem ba jamono ñuy am kaset di déglu Abdou Mbaye bu yàggul man bu yàggul eh, mën naa wax ne li ma yoroon ci kaset rab bi mbaay boo ko doon boo ko doon wàññi valise la woon valise ndax way wu ma mus dégg ci moom mu woy ko ci yitte danaa fexe ba am kaset bi du wayam ci am kaset bi su ma ko dégloo ba noppi lam ca woy danaa fexe ami am ami xasida bi ngir wéral ko dem ci tabaarakallaahu borom xam-xam yi ñu yàlla booleel wala nitu yàlla yi ñu yàlla booleel ñu ñu ko wax ñu la way yooyu ñi ko bind ci yan anam lañ ko bindee macha allah ngir nit mboolooy nit dafa am taxawaay yu ci war. beneen bi yëg-yëg bi ñuy am ci buñ koy def yàlla xam na ni waxtu bu ñu yoree micro di tagg yonent bi gisatuñ keneen waaw gisatuñ keneen macha allah eh, ñu ñaanal ko suñu soppee boobu yàlla na suñu borom dolli wéram dolli guddal fanam ndax sag la ci xadara maamam bi sag la ci diine ji. sag la ci tarixa bi waaye sag la ci kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick muy alxaaji Abdoul Aziz Mbaye yal na yàlla di wéram ak mboolem kuy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah eh, Cheikh alxaaji Abdoul Aziz question boobu loolu lañ ci mënoon a indi eh, ci leeral ñuy ñaan suñu borom eh, yal na suñu borom doole doole teg ñu teg ñu loxoom ba yéene yi ñu am ci taxaw yaay taxawaay yeeg yëpp rek yàlla dimbali ñu ci incha allah Ah, <clears throat> tabaarkalla naa alin loolu am na solo ba tey rek ci ay kàddu Seydina alin wax na wax bu am solo maanaam yitte amul lu mu mënul def ci nit moo tax sa yitte rek tey moo la may boo yëkkatee kàddu rek yëkkate rek ñu ne ah kii way da Abdou Aziz Mbaye la te boo fa ñëwee fekk fa Alioune Badara Ndoye waaye ñu am tamit question boo xam ne xaw nañu jaaxal te saa boo booy tagg yonent bi ñun ñuy ñun téléspectateurs yi koy seetaan ak ñiy seetaan Sam Sam Sam Sono ak ñeneen ak ñeneen dañuy sentir Seydina Ali mi li muy def mu ngi am beneen dimension boo teewee micro di tagg yonent bi lan nga yëg. waaw jamono boobu ñu ñu ñu ñu fu ñu teewee micro di tagg yonent bi jamono boobu ñun ñoo ngi jéem a def yitte pour teewal jëmm yonent bi ci suñu kanam xam nga nit bu fonkee waajuram fonk ay kilifaam euh, du leen du leen sàllalu rawatina du leen du def ñàkk teggin ci seen kanam waaye ki tey jii ñu bind wayjur yooyu muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne tey jii lu am moom la suñu am tabaarakallaahu ci ci ci ci moom la ko suñu borom jaarale eh, tabaarakallaahu yàlla def ñun nim ñu def ci barkeem moom yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ñun nit ñi du ñun lañ bëgg waaye yonent bi lañ bëgg ci nun kon war nañ fexe ba tabaarakallaahu képp ku ñu bëgg gisoo ñu ndax parfois am ñu ñu la bëgg te gisuñu la war nga fexe ba bu ñu la gisee lañ la bëggee woon te jamono bañ la gisulee buñ la gisee mu yokk macha allah moo tax jamono bu ñuy tagg yonent bi waxtu boobu gisuñu kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa jamono bi ñu koy tagg wallahi ñu kenn ku dul ku dul ku dul ku ku dul moom macha allah ndax góor gu baax ka xasaanum lu saabit dafa ñu waxoon ne la in madaxtu muhammadan bi maqaalati ay laakin madaxtu maqaalati bi muhammadi Ah, tabaarkàlla mbokk téléspectateurs yi dafa mel ni nag li ngeen di déglu leer na te comme ni ma leen ko waxee woon rek fii ci Sam Thiam Sono la lépp xewee incha allahu rabbi fii ci Thiam Sono TV tamit ngeen di gisee lu ne kon te naa Alioune mu mel ni ñu ngi bëgg a terminer waaye dafa am loo xam ne faaw ma laaj la ko te seetlu nañ suñu baay alxaaji Abdou Aziz Mbaye foo nekk ak foo nekkut ñun déglu nañ kàddu yooyu ba tàyyi day wax ci yow di wax ci yow ay qualité yu day waar di wax ci ay yow ay qualité yeneen ak yeneen ak yeneen te ñiy tagg yonent bi bari nañu te sànq rek sa caa sàccaat naa ci sa wax nga ne tàggkatu yonent yi bu ñuy tagg yonent bi dañ ko war di yëg ndaxte amuñu ku ko gën waaw moo tax kon ñun tàggkatu yonent yi nañ bàyyi xel ci loolu bu ñuy tagg yonent bi ñu jox ko àq ak yelleef bi mu yelloo waaye nag ñu terminé ci question boobu noonu sa diggante ak Abdou Aziz Mbaye lan moo ko lan moo ko lal ba complicité bi nekk ci foo nekk ak foo nekkut muy wax ci yow kàddu yu rafet yoo xamante ni ku ko dégg ah boo bëggoon Alioune Badara Ndoye benn di nga ko yokku diis loolu bëggoon nañ téléspectateur yëpp mu leer ci ñoom waaye ñu xam ko tamit. macha allah moom euh, loolu dinaa ci sawar ndax gis nga boo amee koo xamante ne kilifa la yàlla dimbali ko defaral ko boppam jaarale ko ci nit yàlla bu mel ni Maulana Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz radiyallahu taala an di turandoom di léppam tey euh, cër bu ko yàlla sunu borom defee ci nit. cër bu ko suñu borom defee ci nit eh, nangul nangul nangul nit kooku cër bi yàlla def ci moom daf lay jural tawfiix ñun ñu sopp ko bëggal ko suñu bopp xam li yàlla def ci moom te ku mel noonu boo ko amee eh, dañ naan man saara alal dar bi wasal gis nga ku jaar ci yoon bi yàkkamti woo yàlla mën na laa defal sutura ba nga yegg waaye boo jaar ci yoon bi dinaay dégg suñu sëriñ sëñ Habib si bu xalifa bi di wax ni néeg bu lëndam néeg bu lëndam kala ca jiitu nag moom moo la mën a wax nan nga fay toogee te moom bu dee tagg yonent bi mooñ ci jiitu lim ci xam ko ci lim ci mën mënuñu ko ci kooku nag di royukaay ci lépp àdduna yëpp sopp ko yow noo def nu dul tey ji jéem a teg sa tànk foofu defoo li la war relation bi ñu séq nag daanaka yaatu na duñ ko mën a wax ci ay ay émission sax duñ ko du ci mën a jeex waaye ci lu gàtt gis nga kilifa gu toll noonu jël la yëg la faale la boole la ci boppam yow noo def lu dul yëg ko faale ko def ko muy sa kilifa boole ko ci sa bopp defoo li la war macha allah waaw muy kilifa gu gu neex xam nga tey jii nañ ko sopp te cofeel googu duñu ko delloo moo tax maa ngi sànni benn message foofu ci ñun ñuy tagg yonent bi ñëpp ñii ñu yàlla booleel ñu soppuñu nañ leen di bàyyi xel te xam ni du suñu jëmm yi lañu sopp yëg-yëg gi war suñu diggante ak ñoom luñ ci mën nañ ko nañ ko nañ ko def ngir yonent bi moom nag luñ ko sopp rëccuwuñu luñ ko sopp delloo nañu lu ko ëpp yëg-yëg bu ñu amoon ci moom moom am na ci ñun yëg-yëg bu ko raw da ngay suñu bis bi bañ ko dalee di def ba léegi jóge na fi ndar na fi ndar ñëw fekkee bis bi pare delluwaat ci tournée ba mu nekkoon loolu ku koy def am na fu la teg ñun nag dama jàpp ne ñun ñoo ko desel te incha allahu rabbi yan nañu yàlla doole sàmmal eh, diggante bi yàlla doole defal ko tawfiix yéene yi ñu am ci moom bari na moom yéene yi am ci ñun bari na yal na ko suñu borom mottali. maa ngi wax it mboolem téléspectateurs yi télé bi di Thiam Sono TV suñu yëf la maa ngi ñaan soppe yeeg xarit yeeg am di jàmm yëpp ñu abonné ci bu ñu yem ci abonné nañuy nañuy bës kii ba nu mu tuddee j'aime bi nañ koy bës macha allah. di ko seetaan di ko partagé waaw ndax taalibi moo mën a dimbali moromu taalibeem macha allah loolu moo doon kaddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Seydina Alioune Badara Ndoye kaddu yi rafet na ñu bàyyi xel ne du ñun lañ sopp waaye yonent bi lañ sopp ci say wax Seydina Alioune say wax yëpp njariñ la yàlla na yàlla dooli la sutura te bes bi tamit yàlla na ko yàlla gën a ñoŋal waaye Seydina Alioune seetlu nañ ne nit ñi sopp nañ la te bëgg nañ la ngir yonent bi dinañ lay laaj parfois sax ñu lay wër duñ la mën a gis mais ku la bëgg a jot naka lay def ak fan la lay mën a jotee ba mën a wax ak yow mi nga xamante ne nii yaa ngi bëggal xolam waaye di seddal xolam ci kanamu Thiam Sam Thiam Sono TV. macha allah loolu loolu loolu dëgg la euh, pour dëggal li nga wax bi yàlla dogalee ñu dem Fès euh, ci deux mille vingt et un bi niñ ci dajeeg ci ay nit ñoo xamante ni dëkk ya ñu jóge ci bitim réew bokkul. ku la ci gis lam la njëkk wax mooy yàlla dogal na ni ëmbal nañ la cofeel goo xamante ne yàgg na lool waaye tey jii la yàlla doon dogal ñu gisee jël nga jox la ko ngir yonent bi kon ñooñu nga gis mais am na ñeneen ñoo xamante ne sopp nañ la xamoo leen di la wé di wét di la ngir yàlla kon képp koo xamante ne yàlla dogal na mu bëgg ñoo jot macha allah mën nañoo jot ci suñu numéro bi nga xamante ni macha allah mooy suñu numéro principal 77 573 89 96 ku ci woo Seydina Ali di nga ko jot boo ko woowee ba euh, jotoo ko ci kàttanu yàlla waxtu bu bu bu bu ko gisee it bu noppee ca la muy nekk dana dana la rappeler incha allah macha allah. ah macha allah tabarkàlla kon Seydina alin ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ñaanal yàlla gën a taxaw bu ko defee nag gars yi ngeen bàyyi xel tey incha allah rabbi fi la ci Pikine na ngeen dugg ci chaîne bi di seetaan di eme waaye bu leen fàtte bu ngeen abone am na kolos bu ndaw bi nekk ci ca kaw na ngeen koy bës kon gars yi interview baa ngi noonu ñu leen sant di leen gërëm waaye nag di leen wax na ngeen wàcc am na émission boo xamante nii yaakaar naa ne bu duggee ci ci ci dëkk bi dina co jamono muy lan lu la nabi defal ak waa kër Thiam Sono TV. ki koy représenté nag présentateur bi mi ngi doon suñu frère di Mouhamed Diaw l'ambassadeur de Pikine sama waajooj noonu moom nga xamante ni taalibeel amin la kon gars yi émission boobu noonu nag dinañ ci ànd ak Seydina Aline Badara Ndoye ak ñi nga xamante ni képp koy tàgg yonent bi daal dinañ la laaj yow lu la nabi defal kon gars yi waaj leen émission boobu noonu ak ci yeneen jotaay wasalaamualeykum wa rahmatullah